parce que sama kër la. Mhm. par président yu Ndour. Mhm. ak njaboot gi mu àndal yépp du ma leen citer. su may mbokk lañu ak i wëllëre yu yàgg-yàgg mais ñi nga xam ne it euh, seen groupe bi dañ koy suivre ci àddina bi maa ngi leen di ziare mais nga may ma it ma ziare xalif général des mourides ndax li mm-hmm. ñu jóge ci màggalu mm-hmm. Tuuba mm-hmm. jóge ci euh, Masaalikul Jinaan farata la farata yu am solo yoo xam ne am na ci réew mi farata la sëriñ bi it def ci lu rëy pour jàmm am ci Sénégal ndax dafa bëgg a fexe ba ñëpp juboo ànd Sénégal rek leen Euh, may jaale it Sénégal sunu doom boo xam ne génn na àdduna xëy na yëg nga ko. Mhm. lii moo teem a dem aéroport parce que Alioune Badara si sunu mhm. frère la. Mhm. doomam dafa nelaw. tout à fait. ci guddi gi. Mhm. suba la levée corps bi. ñu mhm. war ko yóbbu Touba maa ngi koy siyaare ñëpp ñi nga xam ne ay sénégalais lañu. Mhm. ndax Badara Cissé day sénégalais bu baax. tout à fait ba pare yor responsabilité. kon loolu ñu ngi leen koy jaal di ko jaar Sénégal bi. di leen jaalit keneen. koo xam ne dafa génn àdduna te nekk sunu xarit. muy ministre de l' intégration africaine bi nga xam ne dafa gaañu gaañu gu gaaw ci Cap Vert. te nekkoon wëllëre Sénégal nekkoon wëllëre Afrique euh, mu génn àdduna ci nu yi. ndax ci biir fi mu nekkoon ci bureau am. 18 mhm. heures toog di liggéey la génn àdduna ci biir bureau xam ne noonu lañ ko yëgee xam ne man ginnaaw suba looloo tax ma wàññeeku yoon wi ma demoon Accra ndax cour de justice dafa doon daje def ma invité bu am solo ci benn euh, forum bu fa doon def euh, ci intégration bi lu doxal jokkoo bi ak jëndante beeg jaayante bi euh, président de la république présider ko mais dama wàññeeku demander excuse pour war a jiite délégation war a dem Cap Vert le vingt cinq dellu si le vingt sept mmh. loolu ñu dugg ci rek lu aju ci mbiru euh, doomu Alioune Badara Cissé boobu nga xam ne naxar la bu Sénégal yëpp bokk ndax ku xam Alioune Badara Cissé xam nga ko ci jàmmoo ak ñëpp euh, yaakaar naa ni militant APR yëpp. mën nañ ko seede ci yaatu boo xam ne yaatu na ko rawatina ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi euh, ci oyof mu oyof ak itam ubbeeku boo xam ne ubbeeku na ko moom ABC ñi ngi koy jaale doomam jooju nga xam ni ñàkk na ko yàlla xare ko àjjana wax nga ko président tudd nga léegi ne ci màggal gi la